kuréel yu bari yoo xam ni wax dëgg yàlla euh, la ñuy dox mooy àq ak yelleefu jigéen ñi ak ndaw ñi donc ci posture boobu laa taxawee au niveau du département de Diourbel di nuyu nag euh, tous les téléspectateurs de Baol Times di nuyu Mor seen ak tout son personnel di rafetlu jataay bi bu baax a baax a baax waaw ci journée internationale des droits de la jeune fii bi mooy mbégte mbégte kontaan mais également di rafetlu cette journée bi nga ko dédié spécialement à la fille bu ñu xamee posture bi nga xam ni xale bu jigéen boobu moom la am ci société bi bu ñu xamee également lan mooy ay droit am ci biir société bi bu ñu xamee droit yooyu yan lañ ko ci jagleel ak yan yan droit mooy yi nga xam ni xëy na nee nañ moom moo ko moom mais euh, maanaam jotiwu ca dañu naan journée boobu dañ parce que journée de réflexion la euh, journée d'étude mais également journée la boo xam ni war nañoo mën a toog saytu avancé yi nga xam ni def nañ ko ci wàllum protection de la fille avancé yi nga xam ni tous les acteurs def nañ ko ci mais également avancées yi nga xam ni la gouvernement du Sénégal def na ko ci ñun nag ñu nekk des acteurs yoo xam ni dañuy nekk ci protection des fii depuis presque deux décennies nekk ci di ci dox donc journée bu mel nii du ñu mën lu dul rafetlu ko te xalaat nag au sortir de toutes les activités yi nga xam ni dañ koy mëne au niveau du Sénégal que ça puisse faire tache d'huile ñu bañ ne rek journée internationale de la fille ñëw na jàll na te tënkuñu lenn loo xam ne nii dafay jëmale xale yi kanam. voilà donc nga wax lu am solo muy ko euh, SCOFI defe naa ni duma ni fi rek moom moo liggéey ci protection des filles au niveau du département de Diourbel mais également bay nañ ci waar wu am solo. parce que pour rappel ñun suñu comité bii yi nga xam ni dañoo déployé pour les 45 départements du Sénégal dañoo commencé activités yi déjà en 1994 te booba defe naa ni liggéey ba metti woon na booba defe woon defe naa ni wéetoon nañ ci terrain bi mais dañu ni ñun kat surtout ñun en tant que jàngalekat jàngalekat yu jigéen suñu wareef mooy booster l'éducation des fii te depuis 1900 lañ nekk. lan moo nekkoon liggéey bi mooy sensibiliser les populations sensibiliser les chefs de famille sensibiliser njaboot gi ci ni école nekkul bërëb boo xam ne nit dafay yàqoo école bërëb la boo xam ne nit dafay jële xam-xam euh, école même bu fekkee ni da euh, euh, mooy avenir mhm. góor moom la daan gën dañuy constater yenn manque d'éducation mm-hmm. de soumission yi. Mm-hmm. Mm-hmm. ci fii yi ci xale yu jigéen yi non loolu mënul ñàkk xam nga li tax éducation dafa am solo te éducation de base rawatina moom moo gën a am solo te ñun suñu devoir la ñun aussi en tant que acteur ñu yar xale yi te xale bu jigéen bi bu nekkee ci école bi dafa nekk diggante ay mbokkam ak école bi école bi am partition bu am solo bu mu ci mën a jouer këram muy ay mbokkam am partition buñ ci war a ju mais la communauté également am partition buñ ci mën a jóge yaree du ko wax nga ko yaree du ko gi law na ba jël ay proportion yu doy waar mais nag loolu Euh, quelquefois responsabilité fii bi da cay nekk mais les responsabilités également son partagées man dama naan au niveau des écoles c'est vrai de brandir le fait que xale yu jigéen ñi am nañ ay droits mais également c'est important d'encadrer ces droits la en quoi faisant xamal ko ni que yow jigéen nga jigéen nii la war a mën a toogee nii la war a mën a doxee nii la war a parce que au premier chef kiy aar bopp kii aar mooy ki nga xam ne nii ku jigéen ki moom ci boppam mooy njëkk aar boppam nan la koy defee xam ni muy toogee am ay valeur dañoo war a dellu si waat ci les valeurs cardinales yi nga xamoon dañ ko amoon ci dëkk bi te loolu lan moo ko waral éducation bu baax la responsabilité des écoles est engagée parce que tey jii ci école yi dans les règlements intérieurs des écoles war nañ koo tënk tënk boo xam ni benn habillement indécent du dugg ci école bi bépp benn tatouage du dugg ci école bi benn bakkan bu ñu bënn wala jumbax bu ñu bënn wala lum mu ci mënti doon du dugg ci école bi loolu nag ça relève de la responsabilité de nos autorités te fam njëkke nag mooy ci l'État état moo tabax école yi moo samp école yi moo jël jàngalekat yi moom également il est de son devoir mu jël ay bañatee doon ay enseignant nekk ay éducateur parce que l' éducateur c' est celui là bi nga xam ni dafay topp xale bi jusqu'à ses derniers retranchements def ko doomam def ko jarbaatam à la limite def ko sëtam te lépp lu ca sikk également wala lu ca nar a sikk mu taxaw temm ngir lijjanti loolu defe naa ni loolu buñ ko defee de fil en aiguille li ñu soxla muy ay xale yu jigéen yu mat ay xale yu jigéen yu engage ay xale yu jigéen yu xam lu ñu bëgg ay xale yu jigéen yoo xam ni seen taxawaay kenn du ko laam-laamee buñ ko nee jàkk xam ni ñii xale yu jigéen yii ñoo war a yore réew mi ëllëg parce que li ñuy wax rek parité laaj na compétence yu jigéen ñu booster ko parce que tey jii euh, lépp lu ñuy def parité ba def cey law bu ñu tegee góor teg jigéen léegi nag nañu fexe ba jigéen jooju ñuy teg nga xam ni tey jii mooy la jeune fii qui aspire demain à être une femme na xale bu jigéen boobu am les qualités requises véritablement les valeurs sociales yi nga xam ni dina ko may bu ñu tegee góor teg jigéen góor ga du ko yóbbul dara ca la ñuy def parce que comme ni ma koy waxee rek fu góor war a mën a tekkee rek jigéen war na faa mën a tekkee parce que nit nit rek la te mbir mi du doole ay xel la ay xalaat la ay càmbar la véritablement ay fee la yoo xam ni ak i valeurs yoo xam ne yaa koy nampatal ci sa bopp au premier chef avant sax keneen di la ko inculquer. waaw kàddu yu may tëjee rek mooy le cri de cœur bi ma waxoon dañoo nekk ci département bu xaw a sensible en termes de de de protection des fiis surtout boo xam ne le poids religieux mi ngi peser mais damay ñaan rek les autorités yi nga xam ni.

mais par l'éducation des fii et par le fait de booster véritablement ces fii tant au niveau de l'éducation que dans les autres acteurs, euh, Donc, cant ak mi ngi leen di ñeel li ñuy wax daal mooy nañu gars yi jàppale ñu jàppale xale yu jigéen ñi parce que ñun dañoo opté pour ça il y a de cela vingt ans donc loolu ci la ñuy dox di ci wax te defe naa ni fii ci département de Diourbel boo nee benn wala ñaar ci liggéey bi gën nañ cee engagé yaakaar naa ni doonu ñett parce que ñun sacerdoce lañ ko wax def liggéey te yàlla tax lañ ko def devoir lañ ko def te defe naa ni boobu ba léegi ci lañ nekk donc di leen santaat euh, Baol Times à chaque fois euh, lors de ces événements yi nga xam ni dafay am solo non seulement ci Sénégal mais ci département de Diourbel yéen a ngi déployé sur le terrain pour dem vers les acteurs dem vers les personnes ressources pour recueillir des informations pour divulguer ko te loolu c'est assez important donc cant ak ngërëm mi ngi leen di ñeel bu baax a baax a baax yéen tamit et merci également à tous les téléspectateurs de Baol Times